Mhm. jërëjëf xanaa di tàmbale rek ci di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. di sant nag sunu boroom subhaanahu wa taala di sant sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di ñaanal Sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak mhm. wax nga dëgg jàmbaar dem na taalibe dem na ku am pas-pas ku teel a bëgg Serigne Touba Cheikhul Khadim ku teel liggéeyal yoonu murit ku saxoon ci njub ba njabootug Serigne Touba gi ràññee ko ba am ay doomu sëriñ Touba Cheikhul Khadim yoo xam ne yëkkati nañu seeni doom yu jigéen jox ko ko muy seen muy ay soxnaam jàmbaar jooju moo aatu nag man dama ko xam laata ñuy ñëw ndakaaru wala laata muy euh, ñibbi Tuuba ndax sama promotionnaire de classe la hmm. maag moom ñoo def sixième secondaire ba troisième ensemble hmm, hmm, ñoo bokk suñu Kaolack itam ñoo màggandoor ñoo fowandoor ma xam ko bu baax tey waxuma yoonu murit waaye Sénégal yëpp a ñàkk ndax aatu gannaaw taalibe gi ma doonoon dafa am fu mu féete woon ñi nga xamee ni dañoo doon ay taalibe tey wuyoo intellectuel mm-hmm. Mm-hmm. mu jàngal leen ci dundam mais intellectuel terewul a jaamu yàlla intellectuel terewul a doon ab taalibe au contraire boo nekkee ab intellectuel ci la sa taalibe di gën a motale mu sos wala mu bokk ci ñi sos étudiant murid ci université Cheikh Anta ba mu fa jógee itam kuréel gi di law di law di law di law ba tey jii booy wax yoonu murit ak booy wax financement yoonu murit sa xel faaw mu dem ci daayira étudiant murit yi te ku ne daayira étudiant murit yi ne Atou xalifa yi fi jaar yépp làq na seen gërëm dale ko ci Serigne Abdoul Ahad ba ci sëriñ Serigne Mountakha Bachir mii fi toog toogaayu sëriñ Touba Cheikhul Khadim jël na koy fi yàlla yàggal ci wéru ko na fekk nañu ci moom tey ne fekki na ka mu doon liggéeyal fekki na ki taxoon ak dundam muy suñu yaakaar tey ak ëllëg di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñu ngi koy jaal xalif général des mourides di ko jaal mboolem talibe yi di ko jaal mboolem jullit yaakaar naa ne fa mu jëm moo ko gënal foofu tey jii fi mu jógee ndax ka mu doon liggéeyal dafa am peñ muy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul kon yàlla na daje ak ngërëmul sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul waaye ci gàttal daal Sénégal ñàkk na waaye yoonu murit itam ñàkk na tey jàmbaar joo xam ne nii bokk na ci ñi inspiré ndaw ñi ba ñu gën a sawra ci doon ab taalibe bi asalaamaaleykum